mu def ba nga xam te ne ni sidit yi ci boppam moo déformé wu ba nga xam ne ni tànk bi dafay welemu mënatul a jox mënatul sax jug taxaw da koy arrivé à ce que sax yenn saa yaram bi day jékki ba si ak di dagg ndaxte sidit bi moo moo dem ba euh, circuit bi mu waroon a jël jëlatu ko ndax toogaay bu yàgg loolu yépp mu war a nag subir benn opération bi nga xam ne nii mooy tax ñu mën a defaraat tànk yi ba mu mën a doxaat te opération boobu liñ ko ci laaj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 mais bi ma demee bu mujj gi la ma woo waxtaan ak man ne ma madame mu naa ah, mu ne ma kii feebaram dañ ko war a opérer opération bi nag war na toll ci six cent et quelques mille six cent et yooyu nag du moom moo koy opérer mais daf ma bëgg a orienter hôpital La Dantec ci benn médecin bu ñuy wax Charles Diémé ma demee ci Charles yóbbu lettre bi ma Moustapha Ndiaye jox wan ko ko léegi Moustapha Ndiaye xool lettre kii Charles xool lettre bi ne ma kii dañ ko war a opérer laaj ma mané ko ah, man de ma li ngeen ma facturer aw ma ko ndax xale bi fièvreum yag na te lépp lu ma sa am ci fièvreum la ko def musuma am na kuma ma ci jappalé ma mës di dem ak mom di gor ak mom ba mu yegg fi tay tey na fauteuil roulant bu muy tok ndax suma ñëwaan fan pour ma dugg ak moom ci salle yi dama koy gaddu ta mak la am na fukki at ak ñaar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 pour mu am de mu def opération. mu def opération ndax la l'opération. médecin donc l'opération bi jarul une guerre Sénégal. waaw Sénégal Donc médecin en total total total total ñaata nga xam ni soo ko amoon daal lii ni opération tey nag ne xam ni vendredi bi ñu génn ci la woon vendredi saint képp ku nga xam te ni catholique la à travers le Sénégal wala dans le monde entier doon nga ko célébrer mu doon vendredi bi nga xam te ni nii képp nga xam ni catholique la en général dañuy dañ dañuy bolo ci école yi wala ci église yi di def benn mise en scène di représente li nga xam te ni nii mooy circuit bi Yesu Christa mu sell mi jaar ba nga xam ni ñu daal di koy teg ci croix bi they Je retiens un regard d'amour du Christ, sa passion, son arrestation et son faux procès, et sa mise à mort. Oui, la passion de Jésus vient briser le dynamisme de la mort en l'homme. solo su rëy addina si biñ fi ñëw suñu téere yu mag yi sell yi dañuy jàngal nit ki bàkkaar tong gis nañ ko. laata àddina aadama ak awa yàlla mu ngi wane tey ne cofeel kese la mu ngi sàkk mu ngi sàkk ci cofeel gis nga ñii nga gis ay xale ñoo xam ne ñu bàyyi lépp boo xam ne dañuy firndeel wone nit ñi ne nii mooy gëmu chrétien ne yéesu Krista dafa dee pour musal waxuma chrétien yi pour musal àddina si sépp loolu mooy cérémonie tey

Jésus gëm nañu dee comme Jésus ah, chaque année fii lañ koy defee yàlla am yàlla may kattan di ko di ko mën chaque année ko defaat ko. ku la cuubal Mali la dëkk waaye ñun de ki ñu cuubal Sénégal gii la dëkk ndekete ñun Sénégal am na fi ñuy cuub ah man de wóoruma woon ndaxte de bu ma demul woon def reportage bi duma ko xam ñii de ay cuubkat lañ Sénégal lañ dëkk lu waral sénégalais yi di jënd cuubu Mali lu waral képp ku sol cuub ñu ni la xanaa Mali nga jóge mel ni yi lu ñu defal cuub mel ni sénégalais yi mënuñu lu ñuy cuubee looloo waral tey ñu dem seeti ñi nga xam ne nii ñooy cuubi ñaxtu nañ nag ñaxtu nañ bay bëgg a dee ndaxte kenn tegu leen fenn. Euh, ñu ngi jànkoonte fii def kër boo xamante ne manque de matériel. Euh, am nañ problème euh, manque de matériel. dañu soxla ay so yor nañ fi ay solution yoo xamante ne laaj nañ gouvernement mais ba léegi gouvernement. c'est gisuñu cuubkat yi daal lañ mun a wax fii si sa Sénégal gisuñu cuubkat mais ay professionnels kese ñoo fi nekk am na ñoo xamante ne dañuy dem Mali dañuy tudd Mali mais si ñun la ñuy gën a jaar di defar ay cuub mais il faut ñu wax Mali rek Mali rek te loolu daal moo indi lool parce que dañoo manqué fi ay matériels yoo xamante dañ ko soxla. ñu ñëw ñu dugg ci beneen kër ñu jëlee ñu fa parce que kër jàmbur yi rek la ñuy liggéey te lii 6000 la. dañoo waroon suñu amoon suñu béréb bi nga xamante ni fa la ñuy liggéey chimique bi ci lay tane. mais voilà kër yi jàmbur yi mënoo fa liggéey yeneen liggéey yi fii nii sax borom kër yi gis nga commencé na indi fi sax ñu jëlee ñu fi suñu problème loolu la. suñu problème bi ñu gën a sonal mooy loolu deuxième bi mooy cu Mali nu muy duggee ñoom ni ñuy amee seen basin bi moo gën a riche suñu bos bi. gis nga différence bi foofu la ñoom seen basin bi ni ñu koy amee Mali di leen gan lañ yomb.

naa waat ci ngelaw yaakaar romb la ngay daw li nga war a def bul coow bul xaar mu lay rëcc bul yëglu bul jébalu def li ngay def ne gëcc fi nga war a jaar ba tekki léegi la ci teew amul jëlaleeg ba ma yeewu defal yitte ba jiite say xalaat ni mu dikkee sax. amuñu place fu ñuy cuube loolu moo ñuy gën a ñu amee palaas comme centre daal ni fu ñu mën a cuube ñun ñëpp ñu dajaloo foofu. ñu cuub moo ñuy ganaar fu mu ne dañoo tasaaru ku ne day cuub keram te loolu ganalul lu ñu ganal pour ñu am place ñu ñëpp ñu bokk fa cuub bu ñu wàcc ku ne ñibbi këram moo ñu ganal nekkaguñu ci nawet waaye ñu ngi dënmal nawet looloo tax tey jii ñu demaloon leen ci banlieue bi. defaroon suñu banlieue bi daal les condition les plus déterminantes quoi

toutes les mesures pour mettre la situation dans les conditions les plus favorables. fi nga xam ni mo gëna gën reculé ci banlieue fi nga xam ni su xiinee sax mu taw ba ñi nga xam ni nii nañ torop loolu waraloon tay ñu dem dékkal leen ci ñu micro ndax ñom nee état bi warta tok bañ taw ba lor bay tëmb ñuy doora ñew di indi ay jalu suuf li ñu bëgg kay moy ki di Macky Sall ak gouvernement am juk ci ca muy tel ñu jéem a rek liggéey rek lépp lu ñu mën a lu ñu xalaat ne buñ ko défé dëkk bi dina rafet hmm def ko. ñu jàppalante maanaam di dënkante dëgg ñu bañ a warante maanaam waaw buñ la falee tamit xam nga am na lu tax ñu fal la mbéjum kanam borom boo koy fay yu bopp xam nga parce que ni mu mel nii soo xaaree ba taw bi ñëwaat day gën a perturber situation bi te day gën a affaire bi dugg gars yi nuñ ko nuñ ko doon liggéey duñ ko liggéey parce que jeunesse bi léegi dafa jeex seen kattan dafa jeex ni ñu mënoon bu njëkk ba mënootuñ ko léegi fekkee dañu xaar ba affaire bi ñëwaat xam nga su yokkaay day surcharge quoi